le Rufisquois ñëpp jàpp ni site internet boobu liggéey bu mucc ayib lay liggéey ci mim réew. waaw tey dañu ñëwoon pour xool bërëb yi nga xam ne yi war nañ ci tabax ay commissariat ci biir bu gaaw euh, parce que bu ngeen ko bi ñu demee assemblée waxoon nañ que ne ren bëgg nañ tabax euh, ci biir Sénégal du du Dakar rek ah ay commissariat yu xaw a bari benn programme bi ñu ngi ciy liggéey jotagul a pare mais am na ci loo xam ne lii wàll boo xam ne pare na. dama taxoon nag ci wàll yu pare maanaam pare mooy def nañ dossiers yi def nañ appel d'offre yi lépp yemb na donc léegi tabax rek moo tam moo jot donc moo taxoon euh, ma demoon euh, ñëw fii Thiaroye euh, également avant mooy ñëw caaro yi dem nañ Kër Mbaye Fall dem nañ Tëngéej dem nañ également yëmbal danañ tabax également ci côté Kër Massar foofu yëpp gën ngaa néew juróom ba juróom benn commissariat yooyu yëpp ne naa procédure yi pare na budget bi disponible na xanaa fii rek laa war a xool ak suñu gars yi Afrique yi naka la ñu ci mën a jàppale parce que quand même euh, liggéey bi fi nekk xaw na bari parce que fii aussi ci biir caaro yi am na fi réserve boo xam ne bii war nañ fi mën a tabax commissariat euh, ndaxte fi nga xam ne fa la commissariat bi nekk dafay xawal di am problème bu nawet bi jotee donc loolu mooy lii ci suñu tànk tey identifier nañ terrain yi yaakaar naa ne benn bu ci nekk am na peut-être euh, lu ndaw luñ ci war a def pour liggéey bi war a mën a démarrer. Euh, donc loolu moo doon tànk yi tànk yi tey xanaa di boole rek te ne Tëngéej puisque dañu bëggoon dañ ko bëgg tabax ñaari commissariat dañu bëggoon dans l'urgence wut foo xam ne fii déjà dañu ko mën a louer pour que au moins déjà commissariat mën a commencer en attendant que puisque euh, problème local lañu am foofu le temps que terrain bi nga xam ne bii maire bi décidé nañ jox ñu ko muy maire euh, albindo yi ñu def la procédure administrative bi nga xam ne bii dinañu mën a permettre ñu mën a ñu mën a tabax maintenant ci Tëngéej ci boppam aussi bëgg nañu fa bu mag boobu dañ koy def ci euh, ancienne place bi nga xam ne fa la commissariat bi nekkoon bu njëkk te nga xam ne bi bâtiment bi daanaka mi ngi bëgg a daanu tey kenn nekkatu fa donc loolu dañuy xool procédure bi aussi peut être xool ak ministère de la culture pour ñu dindi ko ci statut bi mu nekk mën a ko toj mën a daal di commencé également tabax bon normalement euh, commissariat yi ñuy tabax euh, en principe diggante ñeent ba juróom benn weer tabax ba na pare donc maintenant nag xam nga tabax nag d'abord li ñu mën a wax nii rek mooy contrat la ñuy signé bu ñu signé contrat ñu nag entreprise bu ko war a def li ci des nag maanaam mooy kenn ku nekk ci contrat nga respecté sa wàll ñun nguur gi bu ñu respecté paiement yi correctement entreprise dafa war a respecté liggéey bi bu ñu ko respecté rek yaakaar naa ne fii juróom-juróom benn weer dinañ mën a yéene gërëm tout ce commissariat